dal leen jàmm mbirum 94 milliards yu titre foncier wu 1451 R daanaka yéenekaay yépp moom la ñu xëyee niki tey jii ak conclusion yi tukkee ci rapport commission d'enquête bi nga xamante ni moom la ñu taxawaloon ca assemblée nationale source aané Mamour Diallo ràgg nañ ko ba mu set wecc conclusion bi ci gën a fës nee nañu amul benn détournement de deniers publics maanaam luubal koppar amu ci mbir mi ci gàttal daal yéenikaay bi ne amul lenn lu ñu mën a toppee Mamour Diallo ci mbirum 94 milliards yooyu le looloo tax yéenikaay bi di quotidien ne commission d'enquête parlementaire gi ñu taxawal ci assemblée nationale ba daal dina tiire bu baax ci kaw Ousmane Sonko ràgg Mamour Diallo ba mu set Ousmane Sonko Ousmane Sonko taqal nañu ko lii la yéenekaay bi di Les Échos xamle daal di bi nga xamante ni moo doon càmbar mbir mi yéenekaay bi ba tey ci conclusion yi tukkee ci commission boobule jàpp ne li Ousmane Sonko yëkkati ne kàddu ci kaw Mamour Diallo amul dara lu ci tege ci dëgg looloo tax yéenekaay bi di laas jàpp ne Ousmane Sonko daal wili pande nañ ko bu baax ci kanamu commission bi ba noppi nag daal di setal deru Mamour Diallo yéenekaay bi di Vox Populi ne député yi def nañu réquisitoire boo xamante ni neexul ci njiital Pastef ba tey bu ñu sukkandiko ci ci rapportu commission bi ci yéenekaay bi di quotidien nee na accusation yi dafa mel ni acharnement politique la ak it médiatique jëmee ci kaw Mamour Diallo yéenekaay yi di l'observateur ak source a ne révélation yu jéggi dayoo la ñu def ci rapport d'enquête bi ñeel mbirum 94 milliards yooyu l'observateur sukkandiku ci article 152 bu code pénal ne ci mbirum 94 milliards yi mennam nit mi nga xamante ni moo mënoon a fay moo di woon njiital bureau des domaines bu Ngor Almadi ndaxte moom mooy émettre chèque trésor moom rek moo ko mën a signé a jàpp ne Maysa Ndiaye joxar bi nañ ko baaraamu tuumaan niki Ousmane Sonko bi commission bi di tuumaal ni dafa violé loi bi ndaxte da doon joué rôle intermédiaire ak tur boo ni du bosam yéenekaay bi dellu siwaat ci seede yi nga xamante ni commission bi jëlee ne ko ci ay nit gannaaw ba mu leen doon déglu ña fa yi sax jox nañu commission bi ay feuille de présence su yoo xamante ni dañu ko doon amal ak Ousmane Sonko te saa su réunion jeexaan moo doon signé ak loxoom ba libération ne Ousmane Sonko ko dem na ba ne dañu war a daan kii di Ousmane Sonko ndax dafa bañ a ñëw wuyu si commission bi ñu ubbi woon ngir leeral mbir mi ak lu ci mën a am laas nee na Mamour Diallo moom altine wala talaata gii ñu jëm dana déposer plainte am ñu des ba tey ca place Soweto ca assemblée nationale ak yéenekaay bi di l'observateur mi xëy dellu siwaat ci coppite yi ñu andi ci règlement intérieur ba te ñu woote ko ni ki démb ay changement yu bari bokk na ci sax dem ba taxawal benn ñetteelu groupe parlementaire yéenekaay bi di Vox Populi ne ay coppite yu bari daal nas nañ ko ci règlement intérieur bu bees bu assemblée nationale bile ci gën a fës nag mooy comité d'évaluation bi nga xamante ni taxawal nañu ko ngir rek di natt liggéeyu nguur gi député bi di Théodore moon tey mi nga xamante ni moom mooy rapporteur groupe de travail commission des lois ga ca assemblée nationale daal di rafetlu li député yi def ba pare ne Sénégal teg na jéego bu rëy ci yeesal gi war ci architecture institutionnelle am rawatina nag réforme yu bëri yi nga xamante ni sumb nañ ko ci mbir mi topp leen ma ci beneen ab yéenekaay di l'observateur mi xëyee tey audience bi nar a dox diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall tey ji ci ngoon la yéenekaay bi dafa gëstu xool lan la ñu mën a waxtaane ñoom ñaar mbiri Karim Wade mu ngi ci biir mbiri Ousmane Sonko it mu ngi ci biir yéenekaay bi ne juróom-ñaari at gannaaw ba Abdoulaye Wade jógee ca pale ba tey ji dina fa dellu siwaat lépp nag ci préconciliation bi nga xamante ni ñoom ñaar di Macky Sall ak Abdoulaye Wade ñu ngi ci te door ko ci njiital xalif général des Mourides.